salaatul istixaara ñaanub julli tànnulu yàlla démb avancé woon nañ ñaari li ñett doon firi ñaan gi ñu koy kontine tey jëlaat ko tuuti ci bopp bi ñaan gi li muy tekki mooy allahumma inni astaxiiruka yow yàlla maa ngi lay tànnulu dafa am mbir mu ma bëgg a dugg yow sama boroom ma la ci tànn ma dugg walla ma bañ a dugg allahumma inni astaxiiruka bi ilmika yàlla maa ngi lay tànn ci sa xam-xam ndax kat yow yaa ma sàkk yaay sama boroom yaa ma moom ma bëgg a dugg ci mbir moo xam ne awma ci xam-xam te yow am nga ci xam-xam yow sama boroom ma la ci tànnulu nga tànnal ma la baax ci man ci mbir yi mooy ma dugg walla ma bañ a dugg ma jënd walla ma bañ a jënd ma takk walla ma bañ a takk ma def walla ma bañ a def ndax léeg-léeg nga bëgg dara fekk loolu nga bëgg baaxul ci yow wa asa an takrahu shay wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay wa huwa charrun lakum lu tax wallahu yaalam wa la taalamuun léeg nga bañ dara loolu nga bañ ndeke moo baax ci yow léeg nga bëgg dara loolu nga bëgg ndeke baaxul ci yow lu tax yàlla xam yow xamu yow yàlla wa astaqdiruka bi qudratika maa ngi sëslu ci sa kàttan di ndimbali ko ci yow ci mbir mi may dugg yow yàlla man aw ma kàttan yow yaa am kàttan man mënuma yaa mën ci sa kàttan googu laa bëgg nga dimbali ma ci sama mbir mi yow sunu borom wa asaluka min fadlika al azim maa ngi lay ñaan ci sa ngëneel yu rëy yu mag yi sa ngëneel yi nga xam ne ay waame la ay toow la yu dul jeex nga dimbali ci nga dimbali ma ci mbir mi yow yàlla maa ngi lay ñaan ci sa xéewal yu rëy yi nga taxaw ma jàppale ma ci sama mbir mi fa innaka taqdiru wala aqdiru yow yàlla yaay aji kàttan ji manaw ma kàttan yow yàlla yaay aji man ji man mënuma yow yàlla yaay aji dogal ji man mënuma dara yow yàlla yaay boroom kàttan gu mat gi ci lépp yow yàlla yaa mën lépp man mënuma dara dama lottu tële man dara laa mënul yow yàlla sans yow sans sa kàttan man duma dem moo tax may sukkandiku ci sa kàttan wa taalamu wala aalamu yow yàlla yaa xam man xaw ma ndax yow yàlla sa xam-xam moo peeg lépp moo xam lépp man yàlla nag awma benn xam-xam wa maa utitum min al ilmi illa qalilan liñ leen jox ci xam-xam dafa tuuti dafa limité wu wallahu yaalam wa antum laa taalamuun yàlla xam xamu leen doomu aadama lu tuuti la xam yaalamuna zahiran min alxayaati dunia lu tuuti rekk ngeen xam ci mbirum àdduna li ngeen xamul moo gën a bëri qul liman yad'u bil ilmi maarifatan arafta shay'an wa gaabat anka ashya koo gis muy fëgg dëgg dënnam di ngand ngandalu naan maa xam maa xam ne ko boo ko rus boo ko ragal boo ko ragalul ko tuuti nga xam li nga réeree ëpp yow yàlla yaa xam man xawma wala alamu wa anta allaamul xuyub yow yàlla yaa xam li fàddu yow yàlla lépp loo xam ne kumpa la yow yàlla yaa ko xam looloo tax yow yàlla yaay aji xam ji ndax kumpa gi yépp laa yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fi sama yàlla amul lu nëbb ci moom ci kaw ci suuf ak ci kaw asamaan yaalamu xaainatal ayun wa ma tux fi sudur moo xam bët yuy wor ak xol li mu nëbb dënn bi li mu denc yow yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu allahumma in kunta taalamu anna haza al amra yow yàlla mbir mii may bëgg a dugg nga daal di koy wax allahumma in kunta taalamu anna haza al amra yow yàlla mbir mii may bëgg a dugg nga wax ko bu dee sëy la bu dee tukki la bu dee liggéey la nga daal di koy tudd foofu yow yàlla mbir mii may bëgg a dugg bu fekkee xayrun lii fii diini wa maashi bu dee yàlla baax na ci sama diine gis nga diine lañ jiital de <laughs> ñun nag dund rekk te sax ndeysaan boo demee ba jokkoowul ak diine ji nga ne ah <laughs> naa fi bàyyi diine ji jël liggéey bi léeg nga gis koo xam dañ ko tere julli seen gars yi ne ko ah eh, eh, eh, liggéey jaamu yàlla la ñu ne la bul war nga dégg gars yi ne la liggéey yàlla la kon nag da bàyyi koor gi bàyyi julli gi waaw liggéey tamit ci la bokk na xat si ngay jëlee looy dundal sa njaboot <laughs> ay si ay doomu bind la pour nga jaamu yàlla nga naan ñu ne yow yàlla bu dee mbir mi baax na ci sama diine du ma yàqal dara yow yàlla bu dee mbir mi baax na ci sama dund gis nga diine njëkk a ñëw dund gi doog a ñëw bu dee du yàq sama dund ah bu dee aussi wa aqibati amri fi may mujjeeg moom dina baax mu gaaw walla mu yéex yow yàlla yàlla nga ma ko yombalal may ma ko fi aajili amri wa aajilihi yow yàlla ci sama mbir mu gaaw walla mu yéex faqdurhu lii yow yàlla dogalal ma ko yow yàlla may ma ko yow yàlla may ma ko yombalal ma ko comme baax na ci man ci sama diine baax na ci sama dund fi muy mujjeeg man ci yéex ak gaaw yépp baax na ah léegi lu des faqdurhu li dogalal ma ko yow yàlla suma baarik lii fii yow yàlla nga defal ma ci barke lu amul barke baaxul yàlla barkeelal ma ko may ma ko barkeelal ma ko allahu akbar yow yàlla bu fekkente ne xam nga nag mbir mi nga daal koy tuddaat charrun lii fii diini gis nga baaxul ci man ci sama diine wa maashi baaxul ci sama dund wa aqibati amri baaxul ci sama mujjantal baaxul ci diine bi baaxul ci sa dund baaxul fu muy mujjeeg yow fi aajili amri wa aajilihi ci mu gaaw mu yéex baaxul aa ah, yow yàlla fasrifhu anni soril ma ko na ma sori de wasrif nii anhu soppi ma ci dindi ma ci jële ma ci sama xel na ci génn bum ci nekkati soril ma ko waaye génneel ma ci sama xel waaye nag yow yàlla li nga yor du jeex wa aqdir liyal xayra nang ma wommatal lu baax xay fu mu mën a nekk summa ardini bihi nga gërëmal ma ko yàlla leneen lu baax fu mu mën a nekk ñoddil ma ko ba mu jege ma nga yombalal ma ko ba pare gërëmal ma ko mbokk yi lii mooy ñaanu istixaar lépp looy dugg lii ngay ñaan yàlla bala nga cee dugg ak lu mu mën a doon booy jënd kër booy tukki loo mën a def loo mën a def ci sa àdduna tànn lul yàlla ba pare doog koo def ñoo ngi jéggalu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.